sériñ bi dëli na ne koo gis mu man ci bisam bii bis ba ñuy jaaxle dañ koy ñee te gaa ngi ne ñaari nit bu ñu dendee kii di fonk bisam xam nga lii lii lii ana déggan déggan ana nga kaay fii déggan sama yëre yi boo ko mën a fóot nga ma koy weeral ba mu tàng sax nga ko teg mais di ñoox rek di ñoox rek di ñoox ah mu yokk nga sama yére yëpp ba muy xeeñ dañuy comme diw ñor. waaye may ma sama jàmm nga naa ma sang bi. xam nga sama benn bànneex nga am li nga bëgg ak li nga bi maa ngi jéggalu waaye may ma sama jàmm nga jéggalu jéggalu ba kañ. ba ma nga ne ma wàjj sa kanam gi sa ñuulaay bu dër kiis bi mel ni xooli xooli. defal ndànk teel a jéggal ko. bàkkaar ak damaa jéggi ba sonn nay jéggi. baalu àq bàyyi àq ko gën. baalu àq bàyyi àq ko gën te waaye nag ñoom noonu lañ mel ñoo ko yooyu moom seen sama jabar jaa dem na njërub gaas gaas du nekk ñaar rek mu dem waaye amul solo jéggal na la demal dana la jéggal kaay bëgg damaa bëgg damaa bëgg nga nii ba kii baax na boo doxee ba ci naaju dana fudd nu doxantu ba kër baay kii bay rabbu bay rabbu mooy kan demoon keroog tam ñu kañ ci sëñ ku baax ga ñu dellu fa mu waxtaanaat ak ñun ci mbaaxu sëñ Tuubaa dolli na dàbbali nii nga wax baax gënuñu cee gënuñu baax gënuñu cee jàmb gi ñëw na te am nañu umpale dëgg dëgg doole sëñ Tuubaa nañ fa gëm nañ ko waaye wóolu gee nan dem ci bàyyi soloon pour man da xëy sax ma nan dem ci bàyyi ram nan fa non non baax mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi alhamdulilah affaire bi kan moom daanaka jëm ñi waaw feebar bee tax daanaka ñuy mayante wax nga dëgg yooyu wallaahi maa ngi jëf jëm dara mbokk ya jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah tabarkalla comme euh, temps bi daa xat mm-hmm. te danoo nekk ci wàccaayu màggal mm-hmm. moo taxoon ma ne woon xaaral ma ñëw seeti sama xarit bi alhamdulilah def nga lu baax ndeysaan def nga lu baax def nga loo xam ne day amul lu ko gën ci màggal gi de mhm. ndax fekk koo xam ne daa sonn mhm. nga dimbali ko ngir yàlla mhm. ndax yoonu sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa ku ko lebal ker mu fay la guddi waaw bég nañ loolu wax dëgg yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi wax wax nga dëgg de jaamu yàlla waaw ndeysaan looloo tax nag sëñ Tuubaa bisam bii mu demee noo xam ne euh, kenn ku ne mhm. yéene ji nga ci am mhm. sëñ Tuubaa day jël sa yéene joojee dëgg la maanaam bu dee da ngaa ëmb benn ëmb sëñ Tuubaa ëmbal la mhm. juróom-ñeenti ëmb ah. nga xam ne booy dem fukk nga yóbbaale alhamdulilah loolu la waral képp ku fi ñëw mën ngaa wutaale sa wogg wala sa leneen denc ko jàpp ne boo ñëwee xiif bi day métti ak fekk booy dem da nga fi i lekk gi moo tax ñu rafetal weccet bi ba dañ koy defar nu rafet ndax sëñ Tuubaa bisam bu ñëwee ñëppay bëgg dëgg la yow ni nga def nii amaana am na ñoo xam ne samay dëkkandoo lañ amul doole. Mhm. waaye amaana mën nañu agsi ci yow mën na ko wax. te man it mënuma la ko wax. Mhm. ndax ñun kër gi ak jàngam xasaayid yi ak alxuraan ji bu tàmbalee ci euh, safar gi. la war a ni nga def nag indi bu mag bii nga xam ne bu soobee ma jugee ba di ko séddale mhm. na li tax def ko nii def ko ci rafet fii ak ni nga mel macha allah. ak ni nga yegsee xëy na bëggoo def loo xam ne day siiw dëgg la dëgg waaw moo tax bu soobee yàlla dañ ko jot ni ñu ko war a jote waaye maa ngi ñaan ci sëñ Touba nit warut wutaxaat bañ ko laaj waaw daa war a joxe laata ñu koy laaj ñun dañoo mënta fay sëriñ Touba hmm. parce que Serigne Touba. Uh-huh. ba l'islam jooyee. Uh-huh. moo taxaw jooyante ko. Uh-huh. sëñ Moussa Ka ma ngi koy wax ci Dissaaw Sakkoor. moom naan l'islam di jooy ba génn gàddaay. ci pewu jant fépp mel nag lambaay. sëñ Bamba moo taxaw ñaan ci barkeb jiili. ne man maay saafi kulle jiili. maay xaadi min Mustafa fi sodaani. maay ramu xam ne ala niraan. bur yàlla sañee jox yeneen ba ñu sañee jiital Bamba. lii saa xaal waxanteeg Bamba ci saa yu mu koy ñenn. Bamba ne pour nangoo. moom kese moo bañ. ndeysaan moom kese moo bañ. loolu nag day wan day wane bañu maamam ga. moom lay wane wax fii. màggal gii nag. ñu jub day fay màggal yi fi jaarul ñëpp. parce que ñëpp dégg nañ. ci réew mi tawat ji fi waaye teewul moom mu dëggal boppam rek. dëggal maamam dëggaloon boppam te biir ba jandar uh-huh. dëggalaat na ko boppam ci tawat ji eh, eh, tawat ji eh. jaamu yàlla la la wax moom tamit mu nekk jaamu yàlla uh-huh. jaamu yàlla nag lu ko neex ci jaamu yàlla mu teg ko jaamu yàlla ah, moo tax nag yeesalaat na fii uh-huh. nan ànd ñëpp ñaanal ko te lépp lu mu namm liggéeyal maama ji mu Cheikh Khadim ñu ñu ànd tàggu. ndeysaan bëgg nañ ci lool wax dëgg lii daal mooy tàggu moo tax ma bëgg a jël. ndeysaan lim bu toll nii. jox la ko pour nga saare ko néew ji doo tax ñu koy laaj. ndeysaan wax nga dëgg de waaw ndeysaan. maaleykum salaam wa rahmatulah. suñu rab na ngeen def. waaw ndeysaan na ngeen def naka rek kay. a ngi jàmm alhamdulilah yéen a ngi jàmm tabaarkalla alhamdulilah baax alhamdulilah yéen nag suñ borom moo moo def mm-hmm. eh, li naan eh, maanaam teew mm-hmm. boo déggee ñu naan ngénte mm-hmm. ak ngéntee na ngeen teew dëgg la yéen li ngeen def ni muy ngeen teew gi uh-huh. soxla nañ ko ci 18 safar gi soxla ko ci màggal gi waaye soxla nañ ko ci kër gi dëgg la day ngénte moom mi déedéet ah, maanaam bisu sëñ waa bu mag bi muy weeru safar ah, waaw waaw waaw maanaam dafay ñëw waaw moom mi waaw seet si ma far ngeen yegg si te gan Euh, euh, euh, sunu maam Ibrahima. Mhm. comme liñ ci wax ci wàllu alxuraan ci jàngkat yi. mooy mhm. ñi may dégg. Mhm. ngeen ñëw na fekk fi moo tax faaw ma présenté leen. dëgg la waaw nga ngeen nuyoog moom bu baax. saafara kan kan kan kan kan mi ngi ma samba. moom sa turandoo de maas xasida yi. calka gi am na taalibi lool bàcc ma samba ata ceebo. calka gi am na taalibi lool ma samba ata ceebo. ndeysaan mën na ko de waaw alhamdulilah. loolu loolu ngeen fekk ñuy waxtaan ci sëñ bi. waaw ndax sëñ bi moom ni mu yaatoo. dëgg daa doon saxaar. ba buy daw ba la rombee doo xam direction bi fu mu féete. ak a wér ak a moo mel noonu. loolu la waral. Mhm. daamam jooju it ma li ma la ci dimbalee mooy. Mhm. daamoo daam yaa bëri njëriñ ba képp koo gis ñu tuddee ko daam sëñ Tuubaa la. dëgg la laay laay la ndax daan sànni mag ñi mbiskit mhm. ñu yëy. boo déggee daan njëriñ lu ënt ak lor. ba waral sëñ Mbaye Sarr ak mag ñu mel na moom daan ko woowee da di ko tuddi baatub yàlla jël yan tag loolu xanaa mooy sa nafin bi laa dara rek yaa ko laal tubaarkàlla sa nafin bi laa dara rek ndax sëñ Tuubaa mm-hmm. ñett la wax mm-hmm. bin naa ba fi mm-hmm. wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis bin naa ba fi gone yi mujj a juddu ñoo ko moom ndax ñoo gën a gëm seen i baay ndax seen baay dañ ñoo gisee yeew mi dëgg la ñun gone yi nag dañoo ñëw maam yam ci wetis bi gën a gëm sëñ Tuubaa ñu ne yeew mi ñëw na ba jàll ñu ne yeew mi ñëw na ba jàll ñi nga xam ne maanaam dañoo gis sëñ Tuubaa def ñu gis. Mhm. mooy tubaab yi àndoon ak sëñ Tuubaa. dëgg la te sëñ mooy koo xam ne. Mhm. fa mu jugee. Mhm. ak fa mu soqeekoo. ba demee ci maanaam euh, ci ci ay mbokkam. ci biir fi mu bokk. moom daa daa mën a defaree. dëgg la war a ba dee gisul xulóob. Mhm. sëñ Tuubaa ne moom mujjadit bu mujj ñëw jamono la. Mhm. ndax da ngay dégg suñu borom di giñ. ci mhm. wala xasri inna linsaana lafii xusr giñ ci weer wi giñ ci lépp. dëgg la nga dégg sëñ Tuubaa wax gisul xulóob. ba'da salaatin laa tazool. dëgg la bil aali wa sahbil hudool. ak wér. wa bee jaddi sabil bilaa hidan aw alami. laa ilaaha illaa guddulu fan. ba sëñ Masamba mii. li waral mu ñëw suñu borom jox na ko ay teraanga ak lu ne. waaye moom mii daa bokk ci nga xam ne bu ñu sañoon du def di wax wala ñu leen di siiwal wala ñu leen di filmer ak fotol di wane ndax ci suuf rek ndax moom turandoom sëñ Massamba sëñ Touba moo moo def ci moom tabe dëgg la waaw sëñ Tuubaa def ci moom tabe Bamba di di Maas Masamba di di Maas mm-hmm. looloo waral loolu waaye sëñ bi ñu tub baax nag yàggaay beeg yooyu mm-hmm. ndax xam nga ne gars yi bu waaw ndax na boo ñu téye la mm-hmm. amaana xam yan yitte ci nga waaw a moom daal fii dëkk rek këram dara moom mi côté sëñ gi rek soriwut ah, na ci ginnaaw kër gi ah, fa joxoñ ngeen fa xanaa moom ba bi ñëwee daa yàggut kii moom nag ndeysaan xam naa jamono liggéey beeg ndax oto yeeg comme yu bëree mhm. bëri yu muy liggéey mhm. ak oto yi dem Bamako Gabon laay laay xanaa kon café gi yaa koy <laughs> transport <laughs> maa ngi tàggatoo ko waaw maa ngi yëg kër gi waaw ndeysaan sama woy ma ah. damaa bëgg damaa bëgg nga xam ne mhm. bis boo demee ci sëriñ Cheikh Abdou Mbacké xamal xamal kon day ñun day mënuñoo agsi ci sëñ bi waaye moom day jege na sëñ bi lool ndeysaan ba diina ji lépp kontaan ñëpp bëgg ci moom. dëgg la waa Touba surtout waa Touba. waa adduna yëpp waa adduna yëpp dëgg la. nee ko nag ñoo ngi ñaanal. gudd na gudd fan. ak wér. fi ne mënuñoo ñaanal sëñ bi ndax fi ne sëñ bi ma ko ñaan damay vivre. barke Sëriñ Tuubaa Abdou moo àggee nee ko. na mucc ni mbaam xoox mucc biir Tuubaa. dëgg la saa ko ni suñu mucc ciw rek. barke Sëriñ barke Sëriñ Tuubaa Mbacke jërëjëf. yàlla ko yàlla sàmm gi neex na. ko baax danañ fa ñëw danañ fa ñëw. may ko mu jàll danañ fa ñëw. may ko mu jàll ku baax la. sëñ Massamba Kane. maanaam cofeel a am taalibe. xam nga yow dan maanaam dan la yittewoo fu ñu toll gis nga ñu mel ni yow mm-hmm. danoo baax ci dëkk bi yaa ngi ñuy jàjj mm-hmm. di ñu delloo mm-hmm. di ñu gën a xamal ndeysaan waaw xam nga yoonu sëñ tubaab yi moo bindoo noo xam ne surtout màggal gi dëgg la bu fi nit ñëwee ci yow bëgg a def loo xam ne bëggut a siiw ndax daa am ñoo xam ne bu ñuy joxe faaw ñu ñu wane leen wala leneen ak leen loo waral ba sëñ ma Samba Kane xéewal yi ngeen gis waaw muy ab enveloppe waaw moom moo ko fi indi bii waaw ki toogoon fii moo ko mm. maanaam lii. Mm. daa bokk daa bokk ci xéwali sëñ Tuubaa yi. dëgg la. ni nga ko gis nii. Mm. mu def ci lu duun. waaw maanaam nam mu ci lan ci lii. maanaam ci loolu li waral mu indi ko. waaw daa bëgg def te kenn du ko wax. waaw moo waral mu ñëw xam ne nekk naa ci koñ bi. dëgg la te am am am maam am ci koñ bi ak maam ab cër. dëgg ñu respecté ma. mu ñëw toog ak man ñu waxtaan ci sëñ Tuubaa ba kenn ku ne sab dënd. jóg maanaam maam jóg. dëgg la ñu ànd ak àll. waaw mu joxe xaalis gis nga waaw lii. ñu ko mën bëriwut <laughs> am na ñoo xam ne waaw bu ñuy def uh-huh. dañuy def ngir caméra yi taxaw uh-huh. bu ko defee nit ñi na mooy lan nit ñi gis leen ma xam leen ma uh-huh. seytaane si naw leen ma dafa am jenn waajoo xam ne man saw lañ koy wax du def dara loo xam ne maanaam yàlla lu mu def lu muy def lu ne. yàlla taxut. kooku élément iblis la élément iblis la Souleymane def nit ñi gis leen maa tax mu koy def. dëgg la de day def saa bu defee waa maa joxe nangam maa tabax nangam maa jënd rajo ci jàkk ji maa benn pa imam bi woo ko ba ñëw ne ko li def de baax na lool xëy na mm. da nga ci am ngërëmu suñu borom mm. waaye li gënoon nga di def te noppi mu joxe ay tàndarma ak suukar ñu koy séddale ci jàkk ji mm. ca mbooloo ma waaye yàlla wi joxe lii de di ko dimbalee doomi aadama yi uh-huh. da koy def rek te yàlla tax moom sax bëggu cee feeñ uh-huh. moo joxe ndimbal lii kat jàppale ko miskin yi uh-huh. mais waaji ba Souleymane Sow ba muy jóg teyu daa jékki-jékki daan bëri daan boo gisee li tax ma def lii sax mooy daal di commencé muñ waaye sëñ kan mi def lii ku baax ne mut gémmiñam gi payu yàlla rek leer loolu ma ne la ko gore la de ma ne la hmm. sunu waa ji sëñ Tuubaa daam hmm. mooy am millier bu ne hmm. sëñ Tuubaa nit ñi kenn ku ne ñi am na ci tournevis mm-hmm. américain mm-hmm. ñi am na ci plan mm-hmm. ñi am nañ maanaam huit deux huit trente comme ni ponte wi amee ponte quarante noonu la nit ñi mel sëñ ma Samba mii su ma ko doon lim dama naan mooy tournevis américain mën naa wise boor bu ne xoolal lii mën naa koy séddale ci kàttanu sëñ Tuubaa màggal yeeg weeru gi yaa li ma leen di waatal waaye manaar ke manaar a ni xam nga sëñ Samba baax kan xam nga ku ma koy ku ma koy rek ku ma koy xoolee alaaji fay ah. mi nga ne maanaam bi sëñ Sidi Moutar nekkee mooy moom ku moomoon Touba TV moom moom Touba TV moom Touba TV nag tudd Touba TV xam nga nu mu tudd Touba teew na Touba teew na ah. Touba TV Touba moom télé laa ba ne liggéey bu garaaw la taxaw Ndakaaru wallaay sëñ Touba bi ñu koy Ndakaaru mm-hmm. ci ruq su xoola jumaa jam fa taxaw wallaay masaalikul jinaan jumaa jam fa taxaw keroog allahu akbar ajuma jooja bëri na xaaj poto bi ma denal xawtul ma waaxu li ci meñ keroog sëñ Muntaxa ñëw Dakar sëñ Touba ñëw Dakar moo ñëw Dakar moo tax mm-hmm. moo tax ma ne leen mm-hmm. da ngeen a ñëw ngir ñu waxtaan ci sëñ Touba dëgg la ngeen dem laal sama góob muy masalik mm. sëñ Touba moo dem ci alxuraan mm-hmm. ci surtout kan fi sëñ Touba boo demee ca tarjumaani masalik déggoo li mu wax lu mu ca wax fa man kaana yarjuu liqaa rabbihi dégg naa dëgg fal yaxmal amala saalihan wala yusrik bi ahadan kennal gi suñ Tuubaa kennal suñ borom la ko suñ borom sappali tànk si delloo ko suñ Tuubaa bu doon daaru bal tàkk bu doon daaru muxti rek wur dañ koy dañ koy door wuy ma ay man ak suñ Tuubaa Mbàkke bi ah, ay man ak suñ Tuubaa Mbàkke bi xaalis bi xaalis bi waaw da ngeen def ndànk loolu waaye xaalis bi waaw ndeysaan jox ñu lan ci moom ko dem waaw da ngeen def ndànk ah baay man kay baay rabu Juuf mi dama yaakaar ne rabatoo de sa rab gi doo ci ñëw nag yow xaalis bi tekkil takk bi ah, yaakaar nag waxtaan bi neex na lu waaye waaw nëbbatul nii waaw waaw léegi la sëñ Ndogo fekk ba fa jërëjëf yàlla yàlla taxaw la yàlla yàlla jàpp sama gana sama maa ko a gën a dun la de sama gana maa koy berne léegi ko yóbbaale te man damay jënd te maa wut kii nga ëmb mbubu njëganaay non non mbubu njëganaay li waaw ma kay sëgg ndànk kay sëgg nii rek bàyyi ràbb kay sëgg sol ko fii lu ci xaj na teem kay sëgg nii rek sol ko kay sëgg nii a fii taalibe bu tëxat sëñ Tuubaa a ko waaw barke borom Tuubaa ah ndeysaan lii sama njëganaay wuy ma sëñ yaa ngi yaa ngi de